Dame Apulaay ci l'observateur tey li mu xëyee ci aljuma bi yamuk fukki fan ak ñett ci weeru octobre ci xëtam mu njëkk bi bu ñu xoolee l'observateur voilà ça vient euh, lentement euh, tey ñu xëy euh, ci radiation bu leader bu ex Pastef Ousmane Sonko annule nañ ko mu di benn victoire en contentieux maanaam jeexagul juge bi nga xam ne dañ ko récusé woon agent judiciaire de l'État moo ko def moom mu remettre Sonko ñu ne ci jeu électoral bi bataille final bi nag ñu ngi ko nar a joué fële ca xët wu njëkk bu journal euh, l'observateur l'observateur ñëw itamit euh, interview Macky Sall ci chaîne de télé bu chinoise bi nee na même bu fekkente ni moom euh, nekkatul njiitu réew bu Sénégal ci diir bu gàtt am na trois points de suspension am na lu mu ci teg mi ngi ci biir yëglekaay bi bu ngeen bëggee lire li ci topp ba tey ci l'observateur rek ñu ñëw ci li xew fële origine de l'explosion qui a tué deux chinois ci port bu Ndakaaru la xewee lii itam benn xeex la diggante ñu ne ay Baye Fall ak ay taalibe fële ca Touba euh, ba deret sax tuuru na ci ñu ne L'Obs xëy na si tey jile ci wàllum wér-gi-yaram dafa am rupture médicament boo xam ne dafa jaaxal itam ñi amee jàngoro yi cancer ñi ay assurance yu tukkee ci directrice euh, pharmacie nationale d'approvisionnement ci garab yooyu ñu ne dinañ def seen kéem kattan ngir mu amaat l'observateur ñëw ba tey ca Mbour euh, euh, stupeur ak indignation euh, ci waay juru benn soxna bu doon gérer benn multiservice moom xam ngeen ne nag waay ja mu nekkaloon moom moo ko faat ñoom seen naqar ci biir journal le ci wàllum culture chanson La vie en rose la nouvelle vie de DJ DJ yi nga xam ne ñoom ñoo woyandoo woon way boobu ak Viviane Chidid beneen actualité bu mag bi démb ci wàllum sport la muy tirage au sort CAN 2023 avec le Cameroun la Gambie et la Guinée Sénégal tire un classique et des derbies analyse pertinente de Joseph Antoine Bell mi ngi ci biir journal L'Observateur ñu jàll ci record ci tàggat yaram ba tey record li mu xëyee ci aljuma bi tey certainement ci tirage au sort bi tamit mi ngi ni CAN 2023 Cameroun Guinée Gambie le Sénégal dans un groupe relevé la Gambie premier adversaire le 15 janvier euh, lay doon bés boobule Euh, match Sénégal Cameroun bu 16 octobre fédération bi mu ngi maintenir match euh, xaritoo boobu nar a dox suñu diggante ak euh, Cameroun te ñu bokk ak ñoom sax nag poule ci kan euh, bi ñu nar a amal fële ca Côte d'Ivoire Badou Dia manager général Teungueth FC nee na on ne se permet plus une saison blanche ci wàllum basketball itam ñëw nañ ci ville de Dakar euh, livre sa version le départ d'Ousmane Diallo était acté depuis lamb lañ koy jeexalee ak guy gi qui met Jean en garde à Ada Fass nee na ko à Paris ou pas il a intérêt à bien travailler fu mu mënti nekk daal nee na na euh, liggéey bu baax ngir waajal seen euh, combat boobu mi ngi ci record. ko taxawal te Nicolas la signé ak ñun. Mhm. dina def face a face euh, diggante Modou Lo ak Ama Baldé samedi bële di ñëw. bee di ñëwaat samedi waaw dimanche bii nii am nañu également face a face. Mhm. Baye Ndiaye borom alburax tamit fii la signé. Mhm. diggante Eumeu Sène ak Tapha Tine dimanche en direct lay doon sur la TFM. yëpp yaa nga ca alaaji ñëpp a ngi ci biir. yaa nga ca incha allah suñu yëf. <laughs> merci beaucoup euh, ndax moo <laughs> L'Obs ak euh, record ñaari quotidien yi ko Futurs Médias di édité ngeen mën koo jënd lire information yooyu ñu jàll ci météo bi en express.